ginnaaw loole nag waa Manchester United nanga wuñ ko bàyyi pour mu jóge club bi parce que waa Manchester United nee nañ dafa am lu ñuy préparé dañoo nekk di defaraat seen équipe bi kii nag di Cristiano Ronaldo bëggul xaar loole instant bi nag Cristiano Ronaldo lu ci mel ni Atlético Madrid ak équipe bii nii di Bayern soxla nañ ko maanaam ñoom waa Bayern ak waa Atlético ñu ngi bàyyi xel kii di Cristiano Ronaldo ginnaaw bi nga xamante ne nii dafa bëgg quitter te kii di Cristiano Ronaldo refusé na offre bi nga xamante ne nii defal nañ ko ko fële ci Arabie Saoudite lu toll ci deux cent soixante quinze millions d'euros ci ñaari at. kii di Cristiano Ronaldo refusé na loolu noonu offre boobu waa Arabie Saoudi defal ko ko bu ñu jugee foofu dem ci Memphis Depay Memphis Depay ginnaaw bi nga xamante ne ni waa Barcelone bëgg nañ ko jaay parce que bokkul ci li nga xam ne nii moo di seen euh, moo di seen kii nii euh, kii nag di Memphis Depay bëgg nañ ko jaay waa Tottenham lu toll ci lu ëpp ci vingt millions d'euros Euh, kii di Abdou jàllo nag di nekk fii nii ci Paris Saint-Germain équipe bi nag nga xam ni moo di Paris bëgg nañ jaay seen jour bii di Abdou Diallo ginnaaw loolee nag ginnaaw Kalidou Koulibaly jugee na fële ca Napoli waa Napoli euh, nee nañ kii ni nga xamante ne nii moo di Abdou Diallo mooy seen priorité en défence jamono ji daal euh, kii nii di Abdou Diallo il est fort probable que mu dem. fële ca Napoli ginnaaw bi nga xamante ne nii waa Paris bëgg nañ ko jaay te waa Paris nee nañ duñ ko aale dañu koy jaay officiel na nag kii di Kalidou Koulibaly officiel na signé na fële ca Chelsea ginnaaw bi nga xamante ne nii kii di Kalidou Koulibaly jugee na fële ca Napoli te sénégalais yu bëri bëggoon nañ kii di Kalidou Koulibaly jugee foofee ci équipe boobee kii nag di Kalidou Koulibaly jugee na fa jamono jii daal ma nga fële ca Chelsea Chelsea lay wóoyalee maanaam saison ren bi fa la koy. wëyale ci côté Edouard Mendy kii nii nga xamante ne nii nag <laughs> moo di Kalidou Koulibaly rejoindre na kii nii nga xamante ne nii moo di coéquipier am fële ci Angleterre moo di Edouard Mendy kii nag fa lay wëyalee maanaam saison ren bi kii nii di Kalidou Koulibaly ñu leen wax ngeen di abonné ci chaîne bi di like vidéo yi am na solo trop xibaar yu jëm ci tàggat yaram.